sëriñ ku ko wax xam ni doo am jot da ngay nekk ci àll bi nekk ci daara ji nekk ci liggéey bi jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal sëriñ Abdourahmane Nourou Daarayni alhamdulilah génne génnewaat nañ ko waaye tey génn bi tey dama ni dafa am lu mu àndal daj nañ ci coono guñ daawul daj waaye tamit yàq nañ ci temps buñ daawul yàq ci émission ndax dañ koo fekk ci digg àll bi muy liggéeyee dëgg la daf ñu ko jaral ndax xam-xam waaye daf ñu koo jaral ngir actualité moo ni mel actualité bee daw ba dab ñu sëriñ Abdourahmane Nourou Daani li mu doon wax yegsi na newoon na ku ko daan déglu ci ay émission ku ko daan bàyyi xel ci ay émission di nga xam ne lii du la bett jàppuk Ousmane Sonko bi ndax yàgg na cee àddu yàgg na cee wax ba sarax yi nga xamante ni moom moo daan fànq moom moo waroon a fànq li waxoon na ko ba moomee te am na lu mu ci tàmbali woon sëriñ bi tey dañ koy yegsi dañoo ñëw ngir mu waxaat solution ci jàppuk Ousmane Sonko bi Ousmane Sonko mi ngi commencé grève de la faim ak lu ci sénégalais yi gisee nu nu ci war taxawaayu sénégalais yi dinañ ci waxtaan ak sëriñ bi waaye Juan Branco mi nga xamante ni avocat Ousmane sonk la ay ay weer a ngi mënul dugg Sénégal démb mu def surprise ñëw ci conférence de presse bi dégg nañ nag coow li bari nee nañ Juan Branco daa am lu mu àndal Juan Branco leneen ak leneen waaye sëriñ bi tey dina ci def ay révélation ndax yàgg naa wax ci jëmm jooju feneen fi ñuy daanelee mooy juge bi nga xamante mooy Maham Diallo dafa war a jàkkaarloog Ousmane Sonko digganteem ak aji saar am na coow lu rëy lu mu ci amoon menaces yi bari na leneen ak leneen am na ndax dañ ma xam jàlloo li tax ñu sañ koo teg sacrifice la waaye nag am na loo moom lu mu àndal moom maa xam loo xamante ni war naa mën a jàkkaarloog Sonko ci wàllu mystique balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Abdourahmane Nourou Daarayni mi nga xamante ni lii lépp waxoon na ko laataa mu ñëw mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal mbokki àddina fépp foo xam ne nit ma nga fa di bàyyi suñu kàddu gi xel ñoo ngi lay nuyu du nuyuwaale soppe yi nga xam ni dañu leen a am ndeysaan ci àddina bépp ci diaspora bi ak ci réew mi ndax bis bu set nit wooñu ndeysaan di seede ci suñu jumm yi kàddu yu cofeel yoo xamee seeti nii daanaka rek mooy ñuy gën a sawarloo ci liggéey bi ndax gis nañ ni ñu ngi koy def teyit nit ñi ñu ngi koy topp te amal na leen njariñ teyit dëgg gi nga xam ne daa tàmbali woon a réer ak itam ñaan yàlla gi nga xam ne dañ koo tàmbali woon a salteel loolu rek bokk na ci li tax ñuy jóg waxtu wu ne di wax ak nit ñi képp koo xam ne daal bu ñu waxee ci làkku wolof di nga mën a xam suñuy wax xamal ni wax jii ñuy wax yaa ko moom lépp nag ci njariñ rek lay doon ak itam baaxi leen ci xam bi nga xam suñu borom defal nañu ko ñu ko ciy sant ak xew-xew réew mi nga xam ne ñoo fi dëkkandoo te jàmmi réew mi di suñu jàmm ñun ñëpp Mouhamadul Amin bu newul ca daara ja mi ngi ci àll ba ndax reen sunguf xob yi xas yi nga xamante ni moom lay fajee nit ñi moom moo koy utal boppam moo tax ngeen gis melokaan bi mu génnee tey oyofal mbir yi lool tey ñu fekkoon ko ci àll bi sëñ bi damay faral di def sama émission yu baree bari waaye yow laa ci mësal defeel émission ñaqtooy xepp nga seetal ma ci en direct ba dama laa mujjee dagg looloo tax mësuma def ak yow émission ba jeexal te waxuma ci seet gi nga xamante ni yéem nga ma ci man personnellement. tabaarakallah Mahamadul foto sa loxo bii nii ma ko def bu boobaa jërut nga may wax sa tur jërut nga may wax sa turu yaay dinaa la wax say mbir shaahiran wa baatinan seet toll naa ci foo xam ni fi mu ne bu ma doon damu damay wax ni moroom ci boppam laa ci amut nit ki bu foto loxom bii yónnee ma ko aajowut sax mu may wax turam ak turu yaayam damay seet nag ñaari seet yu bokkul damay seet ci ci loxo doomu aadama di seet itam ci ilmu nujum ilmu nujum bi nga xam ni bu ma xamee nit ki ak turu yaayam mën naa ko ba wax ko sax loo xam ne ci jëmmam da ko doon nëbbu kudut moom xamu ko ak boroomam seet Mouhamadul Amin dama cee man xeet yu baree baree baree baree baree bëri yàlla def na itam bari na ñoo xam ne tey man nañ ko di ko def tey it ci xamee dara suñ jëmm yu xeebu yi moo tax ñu xam ko maa ngi ciy jëflanteek ay nit ñu bari itam ñu ngi sant yàlla waaye na ma leen ko waxe woon rek seetal nit gis ko loolu du kéemtaan du doonul itam lu ñu war a ma wax ni nga dem ci nit ki ni ko jaay ma tàngal mu jaay la tàngal loolu du kéemtaan kon ñëw nag ñu seetal la wax la li nekk ci yow saahir ak baatin loolu du kéemtaan bu fekkoon ni sañ na noo dama naan seet maa ko fi dàq balaa woon a neex sax ma toog sëriñ si dàq maanaam seet toog bu boobaa nag ñu xool kan moo dàq seet ci jotaay booba te njorto naa ni itam dina ami ndax boo dee wax nii rek dañuy jàpp ne da ngay wax rek ku dul ki nga xam ne siit ni xam na la wala mu woola seet loola mënta xam li ngay wax nii na mu demee waaye seet moom mooy baabur ñaan muy buntub ñaan bala ngaa mën a seetal ñaanal kenn faw da nga koy seetal ba noppi ndax am na ñoo xam ne dañuy dem ci ay sëriñ sëriñ sa di leen ñaanal ñuy wax ni gisuñu lañ leen doon ñaanal xam nga loolu bari na la koy gën a waral nag mooy seet ga moo des ndax ñu bëree bëree bari dañoo am raw xaan rab yoo xam ni buñ leen joxee saafara saafara soo si rab yi dañ ciy jaarale perméable ci seen diggante yaram wi ak saafara si buñ doon sangoo kaamil yëpp wala ñu sangoo géej gi sax du tax seen aju faju te loolu rab moo koy moo koy moo koy def rab boobu faw nga mën a seet seet maanaam seet daa am ay roq am ay roq-roqaan nga mën a dugg ca roq ya ak roq-roqaan ya mën a xam rab boobee di yàqal nit ki ak sarax ba nga xam ne moom lay laaj waaye seet bu ñaan jaarul yoon rek seet ga moo jaarul yoon te yemuñu ci seet dañ lay seetal ba wax la li nekk ci yow saaxiran wa baatinan léegi laa ko bàyyi ngir bañ a eh, jaxase ay nit yu kenn xamut waaye dama daan génne ay tur di def yu kéemaane waaye nag yeegi dama lay dama lay junj rek léegi waa bu ko defee nag noonu lañ lay seetale ba noppi teg nee seet gi xool liñ gis ci yëf yi noonu la ko lijjantelee incha allahu rabbi waaye sëñ bi ku la xam xam ni yaa ngi liggéey ndomba yu yéeme yoo xamante ni réew mi commencé nañ ko reconnaître ci efficacité ci dayoo gi mu dayoo ndomba gi nga xamante ni loo ci defar du doy ñaari fan yu ne mën naa ni amaat yeneen commende sëñ bi waa ndomba yi moom ñi moom lañ ma gën a xamee fi mu ne nii ndomba yi ndax ñi koy soxla woo bari na ñi ma koy jox bari na dana baax nag kon tey ma ñëwaat ci njariñal ndomba yi ba nit ca xam ko Mouhamadul Amin dama ni la woon ndomba gi boo ko takkee ku amul ndomba gi rek yaa ko gën gàllaaj loolu laa la waxoon te teg ko fu wér te booba ba tey gisagoo benn borom xam-xam bu génn weddi ko wala bu ko weddee mu teg ko fu wér ndomba gi boo ko takkee ak ku mën a doon ci àddina ki gën a mystique ci àddina bu amul ndomba gi yaa ko gën gàllaaj bu fekkee seeti nii góor nga ndomba lañ la koy defal bu dee jigéen nga càngat lañ la koy defal bul dégg ndomba rek jàpp ni yow mi jigéen mënoo ko am bu dee jigéen nga càngat lañ la koy defal waaye gis nga ndomb googu boo ko amee ba takk ko foo nekkoon sax aw ay bu fa waree am yow da ngay dem ba noppi ay wa door a ñëw wala dangay jóg dem ay wa door a ñëw wala ay wa day ba noppi ngay door a ñëw da ngay wuuteeku ay boo ko takkee addina bépp bu ñu la nooroon bëgg laa jam duñ ko man ndomba gi da dul kaaraange goo xam ne siiti ne kaaraange gu ndaw la kaaraange gu mag a mag mag a mag la ñëpp ko mën a am nag ndax man soxoruma ci sama xam-xam waaye yoon ndomba googu mooy ndomba gi nga xam ni nit dana ko takk balaa am atum yàlla mu am wërsëga am wërsëga am wërsëg ba day jàpp ni sax yàlla da koo joxandoo wërsëga ma bépp ndax bis bu set ma ciy liggéey loo xam ne man mii sax damay mujj man dama ciy yéemu fa tabaarakallah tey laabir nañ ci bëgg nañ itam ku ko war a am am ko waaye ndomba gi du ñëpp koy am itam bu fekkee ni da ko koy yittewoo ba noppi bëgg ko it te naroo ko am sax doo am fexi jokkoo ak ñun wala boog boo waxee ak ñun ba noppi la lay jotale ci ndomba gi doo ko def ndomba gi du ku ci bëgg jot jot ci waaye daal ñoo ngi ñaan suñ boroom defal ñëpp koo xam ne war nga ko am rek nga am ndomb gi ndomb gi daal la mënuma ci yaatal ndax nit ñaa ngi koy bëgg a xam fi mu ne la waaye suñ bi ndomb gi dama ni daal jël relève bi rek waaye li fi nekkoon nga xamante ni mën naa ni sax buñ la xamee ci gannaaw nuuru daayira bi moo tax nga siiw muy wàllu nopp nopp boole ay nit def nga ci loo xamante ni dëkk boo fa jaar rek dem demee feneen fa ca des nga tojaat ko fii may wax yow nii man lu ma wax rek ñaari du ma ci dikkaat lu ci dikk lu bari ci ci ayub bis gii may wax ak yow démb ak tey romb ko nopp dama ciy liggéey lu nopp nag mooy luy boole góor ak jigéen bañ bëggante ak luy tax ay nit mën a juboo lool moo xam famille moo xam say doom moo xam sa jëkkër moo xam sa soxna moo da ngaa bëgg mu bëgg la lool ba du am ci yow sago kooku nopp moo koy def luy tax nit ki bëgg la wala nga bëgg ay nit juboo moo xam ñu bokk kër wala ay nga am say doom bëgg ñu juboo wala bërëb bi nga xam ne fi ngay liggéey wala nit ñi bëgg la kooku mooy wallu nopp dama cee toll foo xam ni daanaka gone yi ànd man rek fi mu ne dañ ciy def ay kiimaan ñi nga xam ni dañuy ñëw di ma di di di toog fi man ma leen di jox ay xam-xam dañuy dem ñoom sax dañuy demoon ba jàpp ni nopp amut da ñoom rek laa la wax dama leen di wax li ma leen di wax ñu di ko defal seen bopp maanaam ñi ciy gis ay résultats toll naa xam foo xam ni fi mu ne léeg-léeg nit boo xamee dara ci alxuraan wala dara nga ñëw di ma noobloo daanaka dama lay tegtal ni la defal nangam ak nangam ak nangam da koy def ñaari fan ñett ñëw tàmbalee muuñ tàmbalee reetaan bu ma nee lu ma nga ne ma mbir ma moom jàpp na ba noppi te da nga may limal ñu bari ñu la ci naxoon te itam li ma leen di jox ñu koy def maanaam bukkut ak maanaam man sama jëmmi bopp fii ma ci jaar ngir ngir dimbali nit ki ci wàllu nopp mhm. kon boole nit ak nit ngir ñu bëggante loolu moom xaw ma kan la jafe waaye man jafewu ma mayuk suñ borom la nag nañu xam ne nag man samay wax gudd gàtt lépp fa yàlla laa koy la la laa ci laa ci wéeru mhm. man samay wax moom suñu borom laa ci jiital ndax loo gis ci àddina rek maanaam ab jullit lépp lu muy wax daf cee war a sóoraale suñu borom waaye nopp ma moom sëñ Mouhamadul Amine noonu lañ ci mel moom tamit fa la leneen sëñ bi lu jur coow ci réew mi dañ naan këyit kenn mënu koo ñaanal nit waaye ba ma dikkee ci yow jox nga ma ay preuve wan ma ni këyit dañ koy ñaanal nit ba mu am ko ak fu mu mënti nekk ci àdduna bi nga ñaanal ko ba mu am këyit ñibbi si waat ci ay njabootam waaw këyit moom baye boo sëriñ si saye boo ah man dey xam naa ni kayit moom li ma xamoon mooy saye boo ñu bàyyee ma ko rek ah. ndax lii ñëw ci man naan ma dañ maa ñaanal ba sonn gisuma ko ci kayit dafa dafa dafa dafa bari te man gisaguma koo xam ne dafa ñëw di ma ñaanloo kayit amu ko waxoon naa leen ko li ma ciy liggéey lu ndaw la doonut lu bari moom itam yàlla def na ni ñu ngi ciy dimbale nit ñu bari yàlla nañu ko suñu borom gën a man loo Mouhamadul Amine kayit la koy defar ba nit man koo am ak kayit gu mu mën a doon permis kayitug bëgg tukki bëgg a dem bëgg a ñëw carte d'identité passeport ba ci kayitug juddu ak ku mën a yor kayit ak lu mu compliqué compliqué boo ñëwee bu ma la joxee li ma lay jox dañ koy lijjanti ca na mu gën a gaawe jox la loola moom ka ka yor kayit yi war koo defar moom ci boppam la suñ borom di def ci am xelam kayitu diw mii defar ko mu gaaw nga jox ko ko donte xamu la noonu laa mel ci kayit neexoon nag nit ñi xamee ko noonu neexoon na nit ñi xamee ko noonu sëriñ si nga xam ne dañuy jéemit ñu bàyyi ma loolu ndax itam bu fekkee seeti nii wax dëgg yàlla nit ñi dañoo sonn di jël seen alal di ko weexal te li nga leen di wax noonu bu ñu la ko joxee ngir yaakaar doo leen ko defale nañ ko bëggee àq day daal di ñëw te ab jullit bu fekkee ni da ngay ñaan yàlla waroo di dunde àq waroo di dunde riba te loo xam ni mënoo bawoo rek lu yàqu yow a dafa am ku la woo dama lay siiwal ndax dafa am ku la woo léegi nga ne ko fexeel ba suba heure nangam sàngam boo mënee jokkoo ak man sa passeport naa ko jot naa ci jot ndax am na loo ciy def sëñ bi loolu loo ci mën. Mouhamadul Amine passeport dama ciy ñaan nit ki am visa. ci passeport nga koy def. ñaan nit ki am visa. moo tax man léeg-léeg ay nit di ma woo di ma seetloo naan ma dama dañoo bëgg jaar ci yoonu suuf yooyu dama leen koy tere. ndax man dama naa la demal wuti passeport. nga indil ma ko ma ñaanal la ci suñ borom defal la visa ak réew moo bëgg a dem man sama yoon nekkul ci yooyu damay ñëw ñaanal la nga dem ñooña nga neex leen ñu may la passeport kenn waroon na fee yor passeport maanaam passeport passeport waaw kay Mouhamadul Amine passeport bëgg naa dem nag bu soobee yàlla passeport bi bàyyi ko fi uh-huh. da ko fi bàyyi bu yàlla defee ngay ñëwaat ngay ñëwaat fii Touba nga fi ñëwaat wala ngay ñëwaat fi man uh-huh. danaa la ko jox ndax fi mu ne nii dama koy téye uh-huh. bu ma defee li ma ciy def ba jox la ko boo génnutul ci yow lay ci yow lay des ndax passeport moom boo ma ko xasee ba jox ba ma def ci li ma ciy def boo demee bi mu kenn mënu laati am visa moom xanaa loolu day lu raar lay doon lu jafe te yaakaar naa ni li ma lay wax di nga ci teg say bët bu fekkee koo xam ni it Mouhamadul Amine nekku fi yàlla daa def nekku fi te kenn mënu koo yóbbu yóbbante dara ba mu jot ci kooku la ñu koy defal ci kurus lañ ko koy defal riyaada lay doon wala mu doon xalwatu xam naa sax danañ ci gën a yaatal ndax man sama ñaan ki fi nekk ak ki fi nekkul laa yemale bu ma neexee du ma la jox nga takk duma la jox nga naan duma la jox dara fi ma toog te gis résultat gis résultat force gis résultat loolu nag kurus lañ koy defee loolu faw nga xam turu yàlla xam turu rawxaan yi nangoo wéet ak sa borom nangoo génn ay sara waaye faw tamit nga am xam-xam faw itam nga mën a xam lan mooy musallas lan mooy mu rabba lan mooy mu sabba lan mooy xasara alfu buyut na lan mooy xawaatim dëgg-dëgg mooy lan kooku boo ko mënee rek sama borom dogal nga fatu aaju joo mënta faj ci yow lay des sëñ bi dañ ni alxuraan ni nga ko bëggee ni nga ci taqoo ni nga ko miinee ni nga ko xamee ci ngay liggéey wàllum ubbeeku yu yéeme yoo xamante ni ràbbalante ko bind say mim ubbi ni mim yi ubbeekoo kenn du la tere ubbeekoo noonu. waaw loolu wàllu ubbiku la. mooy basang gi ma fi fekk. loolu mooy mooy lii xam nga tey Mouhamadul Amine tey danga ma danga maa fekk fii ma nekk ci àll bi tey danga maa fekk ma nekk ci àll bi doon am liggéey yu may yu may yu may liggéey li wane ko wàññiwu dara ndax lu baax rek la. bii de borom tàkk na moom ba faw seen nii moom la wax basang gi ci laay li ñuy wax taal nii ci laa koy defee nit. taal nit waaw ba nga xamante siiti nii maanaam kenn mënu koo tee am alal ci àddina kenn mënu koo tee ubbi ko ci àddina ni nga koy gisee nii boo ko gisee nii rek xam ni lii du lii du liggéey bu ndaw liggéey bu mag a mag a mag la te itam nit ki bu ko xësee ba am lii dafa am ay mbir yu muy yu muy àndal ndax itam da ma fekk tey ci àll bi daanaka daanaka may may may liggéey samay liggéey moo tax sax xëy na ngeen fekk nu nii ci ci ci melokaan wi waaye nee naa leen xam-xam nekkul ci ay at xam-xam itam nekkul ci nekkul itam ci wàllum ci wàllum maanaam ay yére nekkul ci itam ci ab bërëb boo amee xam-xam rek am nga xam-xam moo xam ci kër nga nekk moo xam ci àll nga nekk boo amee xam am nga xam moo xam sa soldat oyof moo xam sa soldat boo amee xam-xam rek am nga ko moo xam mag nga moo xam ndaw nga waaye xam-xam buñ koy tënk ci foofu nekkul ci foofu xam-xam nekkul ci foofu ci nit ki lay nekk waaye nekkul ci li nit ki di sol wala at yi nit ki di am wala fi nit ki di nekk loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax amaanaa nga romb nit dem wuti ku ko gën a sori wala boog nga wuti koo xamante ni moo koy gën a jafee gis wala koo xam ne moo koy ëpp poñetum addina te teewul ka nga romb mooy faj saajo ñun nag la ma doon wax rek ñaan kenn mënuñu cee jox lu ñu amul ba noppi ndax ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax lii ñuy defal nit ñi ci suñ bopp lañ ko njëkkee ci suñ bopp lañ ko njëkkee ñu ngi sant yàlla bu baax waaye nag lii ngay seen Mouhamadul Amin lii lii ngay seen lii la war a am na ci liggéey yoo xam ne ñu ngi koy def ci àll bi waaye nag bët du ci tege ndax kon dag ñuy dàq waaw sirru dafa am sirru mooy loo xam ne mboot la te it dañ koy nëbbu buñ ko génnee rek dootu doonati maanaam li nga xam ne mooy mooy mbóot lii dama ciy liggéey loo xam ne seyti nii góor mën na ko am jigéen mën na ko am mag mën na ko am ndaw mën na ko am da ngay tàqalikook ay jafe-jafey àddina da ngay am alal da ngay am kaaraange say noonu duñ la mënal dara dara dara dara dara dara dara tey da ngay saf nit ñi neex nit ñi te li ci gën a doy waar mooy lii boo ko amee suñ borom dalay teral a teral a teral diirub ngay dund ci àddina doo tàqaloo ko ay ay teraanga muy téere muy càngat gu doy waar goo xam ni ñoo ngi koy liggéey ci waaxiyan ak suy na muy ànd ak itam ay kéemaan yoo xam ne si ni mag ji danañu ko xam waaye foofu laa ci yem waaye daal bu soobee yàlla tabarkalla yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na ndax li ñu war a waxtaanee li ñu mën a waxtaanee ak suñu sëriñ bi nga xamante mooy Cheikh Cheikh Abdourahmane Nourou Daare ni bari na njariñ li bari na foo ko takk weesu na ko bi ñuy jàngi bi heure jàngi jotee dafa jàngi bi jàngale jotee dafa jàngi moo tax bi jariñ jotee mu toog di jariñ jaami sëñ bi fa la ñuy jàll ñëw ca la nga waxoon balaa may wax ci Ousmane ko sax accident yi sëñ bi da koo junjoon ndax da nga ni mbalit da nga ni woon eh, wetu tali bi sëñ bi ñu toog tuuti ñaari fan ñett accident ba am mbët mbëkk ma nga sëñ bi nag loolu yéeme na de accident yi. dama ko waxoon xam nga yow lii di xew nii lépp xam nga ne waxoon naa ko. vidéo yi mi ngi fi da ngeen di dem dégluwaat vidéo yi waxoon naa ko. waxoon naa ko waxoon naa leen ne leen autorité yi nañ ma dimbali ngir jëm yàlla. sën yi nga xam ne ñoo nekk ci wati tali bi ñu àndale ko. mooy mbalit yi ak mbalit yi ak fi nga xam ne dafa àlle. ak fi nga xam ne ay garab dañ fa ay ay pax yu suulu dañ faa nekk ak sànce yi nga xam ne tabax yu agut yi nañ taxaw ci yooyu gis nga luy ñëw waaw ndax li a loolu mooy damaa gis ay sayaatin dëkk ci ay jinne lañ te dañoo bari dool te dañuy nekk ci tali yi di def jiyee waxaat naa ko nan def lii ma wax ndax accident yi bana wàññeeku ndax ay jinne yoo xam ne ñooy génn di gàllankoor oto yi di def yooyu ñuy def jéey yi di am nañ ci jóg ngir yàlla buñ jaaree fi ñu war a jaar dinaa leen wax liñ war a def lépp sama borom indil leen ci jàmm indil leen ci jàmm ndax ñun ñëpp ci réew mi lañ dëkk buñ sañoon buñ gisee dañ koy wax te mu am njariñ fi mu ne nii may wax yow nag xam-xamu jinne kuñ ci sut ci jamono jii gisuma ko xam-xamu jinne duma ko bàkkoo te duma ma ko waxtaane itam ndax damaa gis lu ma ko ëppal njariñ fuuf muy turu yàlla ak alquranul karim mais bi leneen loo waxoon muy jàpp ak Ousmane Sonko bi ah ñi la yàgg topp bettu leen ndax junj nga ñu ko bu yàgg. yow yow Mouhamadul Amine loolu bettu la ñi nga xam ne ñi ngi topp sama vidéo dara du leen ci raw bettu leen ndax saa bu ma dee def émission bu ma ko waxul ca tàmbali ga wax ko ca mujj ga te dégg ngeen li ma ci wax jàpp Sonko gii ñu ko jàpp xaw ma kan la bett waaye du ñu may topp dafa fekk ni Sonko bii jàll waxoon naa leen ni nitu yàlla la. moom yii di ko dal nii bari na ci loo xam ne moom ci jëmmi boppam bettu ko te xamal na ko boppam moom def julli julli ji ajuma ñëw lii xew-xew maa ngi lay xamal ni nag na ma ko daa waxee góor yàlla yi ak nitu yàlla yi nan jëlaat seen kurus ñu ñaan ndax li ma gis nii bu ñaanut fam jëm gënut nan ñaan bu baax nañ sakkaat sarax am na ay sarax yuñ ci war a def am na ay mbir nu war a def bu dul loolu réew mi gis naa ci loo xam ni gënut. nee nañ Ousmane Sonko bés bi ñu ko jàpp jour bi ñu ko jàpp lendemain tam xarit ajjuma la tombel mu fanaan fa première guddeem est-ce que baax na ci moom ci wàllu mystique. la tombeel te ku ne xam na ni bisu bis boobu yàlla ni mu ci baaxoo def ak nit yàlla yi ku ne loolu kay mooy dëggal li ma waxoon ne Ousmane mii waliyu la rek. Mhm. loolu lay dëggal ndax yow ma asuraal xew-xew yi ci daje. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñu borom jaaral na jaarale na fa ay yónenteem ak ay xaritam kenn xamul nu mu benn mu leen ciy teggil ay natt wala mu leen ci teg ay mbir kon war ngeen a xam ne la ma leen waxoon moom ngeen teg waaye gis naa loo xam ne ci kanam ci mbirum Sonko ci yii man nag dama baaxoowul di jaar ca digg ba mhm. xam naa ko nag ndax yéen lépp laa leen di wax lu cëpp waaye damay xam ni yàlla du la wax lépp nga waxe lépp du la xamal lépp nga xam le lépp danaa junju danaa wax itam li nga xam ne moom laa ci xam nan jóg ci réew mi te sabab te sabab lu jàmm bu loolu day doy na waar lool ci li ma gis nii. juge maa xam Diallo moo war a jàkkaarloog Ousmane Sonko nee nañ nag taxaw na mystiquement pour daaneel Sonko. jëmmi Sonko ci boppam fi mu ne nii may wax ak yow ñi nga xam ni ñoo ko jege wala bokk ñu may dégg te mën a xam ci moom dara nañ ko defal ay ñaan. moom Ousmane Sonko. waaw nañ ko defal ay ñaan bu baax hmm. li ma bëgg a wax du ma ko wax waaye daal li am solo mooy réew mi gis naa ci loo xam ne Mouhamadul Amin doy na waar ba ci gis naa ci coow coow coow coow gis naa fi coow xam nga waxoon naa leen ni gis naa fi ay wor te wor yooyu di ko gis ci kanam mhm. ci kilifa gu mag guñ fi wor war yu metti sax ci réew mi boo xam ne bu ñëwee coow lay doon waaw gis naa fi coow lu rëy tey ci kanam tuuti di ko gis ci ci ci réseaux yi dinga fi gis coow lu rëy rëy rëy bu boobaa danaa ne la Mouhamadul Amine coow lii laa la doon wax mbirum tubaab bii itam Juan Branco dina dugg ci ci dëkk bi dina dugg si fii ci senegal dina fi dugg si te bu fi dugg see ba noppi coow itam dina ci judd mbirum Juan Branco coow dana dina dugg si fii xaw ma dañoo wax dañ ko waxoon ni du dugg xaw ma waaye dina dugg si te bu dugg see coow dina fi am Mouhamadul amin yi may gis sañu maa leeral lépp nga tàggatoo nag ndax révélation yi am na yoo xamante ni bëgguma nga koy wax ci kaw la bu ko defee ñoo ngi sant yàlla bu baax tey xam ne wax ji nag tey xam naa ni du gudd tey du gàtt waaye fii ngeen ñu fekk moo tax te ku ne xam ne ni waxtu mi ngi dem tey maanaam tabarkalla yéen it fa ngeen jóge sori na lool waaye daal li ma ci ëppal solo mooy nañ ñaan ci réew mi yàlla def fi jàmm man itam maa ngi bëgge di sant di ñaanal itam senegal gépp rawatina ñi nga xam ni dañuy déglu sama jëmm ji am ci moom cofeel lool am ci ñun cofeel lool fu ñu mën a nekk ci àddina moo xam ñi ngi may woo moo xam woowuñu ma nañu xam ne maa leen gën a sopp ndax Mouhamadoul Amine fu ne la ma nit di woowee fi mu ne di gaaral ci ñun ay ak cofeel goo xam ni wallaahi la asim dañuy mujj sax ñun dañuy am kers ci suñ jëmm te loolu xam sunu borom rek moo ko dogal moo tax ñoo ngi nuyu ñëpp tey siyaari ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal itam sama borom faj aajo yi saahiran wa baatinan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yaakaar na li ngeen doon xaar ci moom muy mu waxtaanee xam-xam waxtaanee njëriñ waaye tamit laal ci actualité lu mënta ñàkk ndax sëñ Abdourahmane Nourou ni lu war a xew faw mu génn àddu sénégalais ndax fii la dëkk doomi réew mi la te jàmmi réew mi moo ko ñor. neewoon na nag Ousmane Sonko am na lu mu gis ci moom te faw ay mbokkam ay jege ñaaleem wala sax ay soppeem jug def ay sarax tànku dajaloo doon benn ngir mën koo génne ci loolu tey nag bi ñu gisee tiis bi yaakaar naa lañ xam ne lii la doon wax te nag nee na ba léegi il n'est jamais trop mën nañoo def lu mën a génne Ousmane Sonko fa ne xëy na nag mënta wax lépp moo tax fa la ñuy jaaree rek jox leen dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf